بسم الله بقي نيغي سنت بروم بي تبارك وتعالى دي نيان يالا جامك خي ولا موتش يالا دو تيكو جا سونو سانغبا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم بولولو وي نيغي رين دي نيو لين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ginaaw loolu mbokk mi nga xam ne dafa laaj mu ne yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam bi mu amee ñaata at la alquran commencé wàcc ci moom ngir tontu loolu dañ koy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu amee ñeen fukki at la ko yàlla yónni wàccee ci moom alquran loolu xamuñu ci ak wuute ci diggante borom xam bi mo amee ñeen fukki at boobu la yàlla njëkk a wàccee ci moom alquran te saar wi njëkk a wàcce ci moom mooy suratul iqra mooy suratul alaq اقرأ باسم ربك الذي خلق باتا ما لم يعلم لا يوم ولا ييغا خامتيني مو نجيك واتي تي موم تي لول موي غناو بامو امي نين فوكي ات تي يوني والله تعالى اعلم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله مبوك ميغا خامني دا فاي لاج موني ناخ يونتبي صلى الله عليه وسلم بودان تايا داي آه، junj yëkkati baaraam bi di ko yëngal wala da ko yëkkati rek du ko yëngal wala bu daan toll ci baati seede yi rek la ko daan yëkkati euh, ngir tontu loolu ci gàttal gu gàtt dañuy wax ne li gën a wér mooy tàllal baaraam bi mu jublu penku di ko yëngal yëngal boo xamante ne nekkul yëngal goo xam ne baaraam bi day euh, wàcc ka yéeg waaye baaraam bi noonu mu jubloo penku da koy yëngal ci palaasam te du maanaam nga xam ne nit ku mënta seetlu doo seetlu ne mi ngi yëngatu nga xam ne baaraam bi ni mu jublu penku joxoñ bi du dañ ci jublu penku gi mu jublu penku waaye ànd ak muy waale loolu eh, ay xadis yu wér eh, tukkee na ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci bi ñuy melal ak julleem eh, xadis yi nga xam ne moo ñëw ne daawu ko yëngal loolu dañuy wax ne ki ne da ki ne da ko doon yëngal waxam la ñuy gën a jël ndax dañ naan kuy saxal moom la ñuy jël wax gën a jël waxam ka kuy dàq ndax xëy na kay dàq daa gisul la kay saxal gis moo tax ñu wax ne kon day yëngal baaraamam waaye day junj baaraam bi yëkkati ko mu jublu penk mu di ko yëngal ca palaasam yëngal moo tax al imaam Ahmad bañ ko ko laajee ne ko num ko koy yëngalee mu ne shadidan manam nit ki da koy yëngal yëngal gu tar yëngal gu tar gi moy lan modi ne du dañ di ko yëngal waye baram bi day jublu penku lalu moy li nga xamantene mo gëna wër ci liñu toxal ci euh, sanni kay bi bu fekkente bu nday jor bi bu fekkente nit ka ngi taya euh, wallahu a'lam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mi nga xam ne dafa laaj mu ne ban métier mooy métier mi nga xam ne moom la tu bi sallallahu alayhi wa sallam gënoon a jox yitte wala boog bu dee dégg naa laajam yan métier mooy yi nga xam ne def na ko ngir tontu loolu dañ koy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sàmm na waaye eh, commerce na itam sàmm na sàmm ak jaay ak jënd. loolu ñaari yëpp bu ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko voilà sàmm nag dafa nekk métier moo xamante ne mu yàgg la te ñu bari ci yonent yi def nañ ko waaye ñaari métier yooyu daal bokk na ci yiñ toxal ci siira ne yonent bi sallallahu alayhi wa salam def na ko rawatina laata ñu koy yónni wallahu aalam salaamaaleykum wa rahmatullah waaw euh, pour leeral rek mbokk mi ginnaaw bi mu leeralee laaj bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, man métier euh, mu ko gënaloon man métier moo ko gënaloon ak it moom alayhi salaatu wa salaam man métier la daan def ngir leeral foofu lu jiitu yàlla di ko yónni sàmm na commerce na lu jiitu yàlla di ko yónni sàmm na commerce na waaye ginnaaw bi ko yàlla yónnee. dafa daal di bàyyi métier yëpp daal di jublu ci woote sunu borom subhaanahu wa taala di jottali nit ñi woote bi yàlla subhaanahu wa taala léegi nag borom bi tabaraka wa taala daal di koy wuutalal loo xamante ne moo gën métier yam daan def yëpp mooy di xeex ci yoonu yàlla te li nga xamante ne mooy li li nga xamante ne moo dim koom mi nga xamante ne moom la daan jëlee ci yéefar yi bu leen gañee koom moomu mooy wërsëg wi nga xamante ne moom la ko borom bi tabaraka wa taala jagleel jagleel ko ñi ñi daan ànd ak moom di xeex kon ginnaaw bi mu bàyyee métier yi mu nekkoon yépp laata boroom bi di ko yónni ginnaaw bi ko borom bi yónnee ba noppi dafa daal di jublu nag ci woote ci sunu borom subhanahu wa taala bàyyi métier yëpp yàlla nag daal di koy wuutalal lu ko gën mooy muy xeex ci yoonu yàlla di ca jëlee am koom moom ak ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi ànd ak moom di xeex moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis bu wérne ne borom bi tabaraka wa taala dafa def wërsëgam ci suufu xeejam walla boog ci kër xeejam wa jaala rizqi fi dilli rumxi borom bi tabaraka wa taala dafa def li nga xam ne mooy wërsëgam ci suufu xeejam moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne eh, koom miñ daan jële ci yéefar yi wërsëg la ñeel ko ñeelit ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci jullit ñi di xeex kon daal yonent bi alayhi salaatu wassalaam amma ban métier la gënoon a bëgg eh, loolu moom eh, xamee su ko Euh, bu fekkente ne am na bu boobaa euh, commerce ak sàmm lay doon <clears throat> ndax mooy ñaari métier yi nga xamante ne moom la doon def lu jiitu borom bi tabaraka wa taala di ko yónni euh, léegi nag loola booba yàlla yónneegu ko kenn du ne sàmm ak commerce moo gën ci métier yi ndax moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon def kenn du wax ne moo gën ci métier yi ndax loolu dafa laaj dalil dafa laaj firnde waaye mécce yooyu mooy mécce ya amoon ca jamonoom ba mu doon dund lu jiitu yàlla di ko yónni ndax soxnaam da daan commerce bàyyam abu taalibit daan na commerce daan na sàmm ñaar yooyu yépp def na ko kon loolu mooy yi nga xamante ne def na ko lu jiitu borom bi tabaraka wa taala di ko yónni ginnaaw bi ko yàlla yónnee mu daal di bàyyi yooyu yëpp daal di jublu ci woote borom bi tabaraka wa taala kon daal métier yi moom bépp métier boo xamante ne sharia terewu ko bu boobaa nit ki mën naa jël métier mooma def ko métier di ci wut wërsëgam kenn du gënale nag métier ca moroom ja lu dul ne ab tex dafa ñëw wane ne métier sangam moo gën métier sangam ah, bu boobaa ah, loolu dafay laaj firnde ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala wutal ñu ay métier yoo xamante ne yu tedd la bañ ci mën a suturlu di ci am lu ñuy dundee di ci dundal sunu njabootak di ci dimbali julit ñi wallahu aalam